pourquoi Ousmane Sonko. ma gis benn ndaw bu ñuy wax Ousmane Sonko mu am discours bu clair bu ànd ak engagement ma topp parcours am ci impôt et domaine fréquenté nit ñu ko xam ñu wax ma ci moom ni ma kii nit ku crédible la nit ku kenn mënta ger la nit ku am yéene la pour Sénégal. biñ ma ko waxee yemuma ci wax ji rek damaa dem fréquenté ko Ousmane fréquenté naa ko ñetti at di dem këram di toog ak moom di waxtaan ak moom. mais loolu est doy na pour xam ni. xam na ah moom laa lay wax ñetti at du ñaari fan soxna si. gannaaw bi mu ma convaincre nag. parce que Ousmane tamit. Mhm. jàppale wu ma ko nii parce que dañuy ànd après mu jël réew mi ñuy pàccoo ñun àndee wu nit noonu dañu koy jàppale parce que dañoo gis ni ndaw la am na discours bëgg na réew mi ñu bëgg koo jaay doole kompaloo ko. ñu ñëw taxaw ci wetam. d' accord léegi rebuté woo. ah li xewoon 2012. parce que ñu ah. bëri dañoo amoon yaakaar nee nañ peut-être comme yow ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. mais du ñëpp aussi ñoo am gis-gis boobu. ne Macky Sall bu ñëwee beneen changement day am gouvernance sobre et vertueuse on avait galvanisé on avait prôné beaucoup de beaucoup de mots beaucoup de concepts. Mm-hmm. mais finalement bëri gis ne li ñuy wax ak li am du benn. ñeneen gis ne c'est pas un problème d'homme c'est un problème de système ci tënk rek balaa ñuy dugg nag ci sa weeru koor mm-hmm. pour yow peut-être bu fekkee ne 2024 changement am na mm-hmm. ak xëy na ki nga yaakaar muy Ousmane Sonko mm-hmm. est-ce que njortees nga ne ne avec le même système coppite dina am réew du jaagin benn nit moo koy soppi réew ab génération ñoo koy soppi te président Ousmane Sonko xam na loolu ba boo xoolee couche yi nga xam ni tey ñoo nekk ci réew mi domaine bu nekk jël na ca ña ca gën a xarañ fexe ba intégré leen ci biir projet bi tey ñun ñi nga xam ne tey ay doomi daara lañ fexe nañ ba am suñ mouvement boo xam ne modap lañ ko tuddee mouvement des doomu daara patriote jël doomu daara yépp ku mel ni oustaz Tayrou Fall mm-hmm. ñu jiital ko mu nekk suñ kanam ñu mel ni ñoom Cheikh Tidiane ñas domaine këru diine boo jël mu jël ci dugal leen ci xam nga pour lan xam ni réew mi kenn mënu ko soppi te doo ci dugal nitu daara yi